Mustafa santal fi gën amul ku lay Mustafa santal dayob cant yaa amul ku lay ka ngaayoo ci Mustafa barra'ani al min al wa kabba man ankara bi برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عزبه وللجنان قربوا هزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لأذن خيري يجود للجواد بالجياد وسول لي يكون زنقيادي أحياني الباقي بلا إمات ولا تنازح ولا شمات آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفع الأنفع دعا كلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زاء من ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داهي الطبيب برأني من كل هيب ومرض وخاد لي الصحة في كل غرض من ناجم فجي سوا بلي ما قلت جالي فم اللي نيمبوجي ما فكو فا سانتال كو نكو نينا ياغنا أمشي سي يا كار لول واي لوم سي دون ياكار gis na ko ba gisee lu kawe lu kawe njortam ci moom ci pastéefam ci yitteem ci taalibeem waaye alhamdulilah eh, alhamdulilah naa ko waxee noonu sant na ko loolu gërëm ko lii nag man maa fi sàkkul ñu andi liggéey bi ak xewal yéen a ko moom xewal ba kenn ku ne barkeelu ci sant na sëñ sant na cant gu rëy loolu la ma yónni woon nii naa li sant yéen ñëw na ngeen ko santal sëñ Moustapha te dinaa fa ñëwaat santal ko sëñ Moustapha ne ko yàgg naa am ci moom yaakaar mm-hmm. waaye lu mu ci doon yaakaar gis nga bis lu koy jor yitteem ci pasteefam ci yéeneem waaye cofeelam ci moom leen mi ngi koy dénk maamam. alhamdulilah kon sëriñ bi sëriñ Moustapha moo nu yónni woon ne woon lépp nu jaaree ko ci yow mu doxale sa diggam ak sëriñ bi mi ngi koy nuyu mi ngi koy sant di ko gërëm di ñaan suñu borom mu defal ko ci jëmmam ji nam defale woon euh, euh, gaa yu baaxee ci seen at yooyee suñu borom defal ko lu raw bi itam mi ñaan ci barkeb Cheikh Moustapha al Karim mu am ci ndam loxo yi kenn mësu koo am loolu la waxoon ne buñ jàkkaarloog moom nan ko ko wax mi ngi feddli waat laxasaayam di feddli pastéefam di fet dolli ko waat yitte di dolli waat cofeel ci moom loolu la nu boole woon nun ñi nga xam ne sunu maam yi dafa àndoon ak sëriñ xam sëriñ Seexul Xadim ànd ak Cheikh Moustapha nun la jukki woon ne liggéey boobu yéen a ma ko doy liggéey leen ma ko ci njiital Baye Sëñ Mbàkke Géey Ngàcc mu jabal njabootam gépp ak kilifa yi ci yoon Daaru Xudoos yëpp ku ci ne sab taawa ngi nu ànd indi liggéey boobu ci sëriñ bi diñaan mu yàgg fi lool suñu borom defal ko ndam loxo yi kenn mësu ko am ci yoon wi nag ba mu sa gi léegi loolu Cheikh Moussa di ñaan jërëjëf Mbacké waaw lu mu ci ñaan dana ko am alhamdulilah waaye pasté bi mu ko def na yi mu yéen yi mu tànn ngeen def ko mm-hmm. loolu de pasté bu rëy rëy bu sore sore ba tax na lu mu ci yéegaat bëgg ñaan ko ci fas ko ci loolee dana ko am man maa santaar sama jant bopp ci doyloo gi ma ci doyloo digg ma sëriñ bi wax di génn ba sëriñ bi xam naa ni mu toll waaye may may ñaanaat sama ñaanu bopp sëñ Moustapha suñu borom sàmm ko bàyyi ko mu sut maamam yëpp aw fan te mucc te àgg fa bëgg a àgg te ànd mu taxaa liggéey bi nga yàgg jërëjëf Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul kulay werante te ka ŋaayo ci mustawa sheikh mustawa santal da cant yaa fi gën amul kulay werante te ka ŋaayo ci mustawa